mbokk yi ginnaaw bi ñu jiitalee santuk yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli ci ab yonente Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Touba Serigne Mouhamadul Muntaxa Mbakke ñaanal ko borom bi subhaanahu wa taala yàggal ko wéral ko ba yéenam ci diine lislaam borom bi subhaanahu wa taala jàppale ko ba mu defee ko nu kawe njottam te ànd ko njaboot gi mbokk yi tey la alxames juróom benni ci weeru koor dëppoog fanweeri fan ci weeru avril 2020 ngeen di ñu baaxoo di topp ci seen site boobu di suñu info point net ñu cay waxtaane njariñal lixlaas mbokk mi yow mi may déglu foo may mën di déglu ci réew mi ak bitim réew njariñ a ngi nii loo xam ne war na laa yitteel mu ne waxtu woo nemmi ci sa yaram ay tawat wala nga nemmi ci sa mbokk ay tawat mu ne ak tawat ji dayoo bu mu mën di am moo xam mu metti ba ñu yegg ci hôpitalisé ko mu yóbbu ko ci hôpital yi wala ñu di ko def ci yeneen xeeti faj yu wuuteeg mbirum hôpital mu ne tawat jooju lu mu am dayo dayo dayo ci méttiwaay ak tar mu ne dëkkalal di jàngal aji tawat jooju téeméeri lixlaas ak juróom benn cent six fois lixlaas heure boo xëyee suba boo ko defee nga taf li ko ci ndox jox ko aji tawat ji mu naan mu ne borom bi subhaanahu wa taala di dana ko yëkkati delloo ko ci sagoom ak tawat ji dayo ba mu mën di am dana wér ca tawat jooje bu neexee borom bi subhaanahu wa taala te suñ borom dana yéwénal mbiram ci biir ak ci bicc mbokk mi kon mel na lu am solo la loo xam ne jullit bu nekk war na ko bàyyi xel te yittewoo ko xam naa incha tey waxtaan wi lañu ñu àndoon ak yéen di leen jox dig daje ba suba incha allah ci beneen waxtaan ci njariñal lixla